ah day gën a tamit gën a xuus gën a tamit jàll si si beneen bi tamit si wàllu sport lañu dem ba léegi si wàllu lii di làmb gannaaw bañ paree foofu si sant yàlla ñu daal di dugg si làmb ji parce que pour wax leen buñ paree si wasaare sport si wasaare làmb lañ jëm gis ngeen kii di écurie Grand Yoff mbooloo mm-hmm. xam ne Grand Yoff mbooloo kenn dootu ko présenté mu am ay mbër yoo bëri bëri yoo xam ne ñoom ti nañ fa démissionné lu mel ne ay ñoom T-Max mbër yu bëri ñoo xam ne mun nañu waxoon ne Grand Yoff mbooloo ay mbër kaamil lañ fa woon. Mm-hmm. lu si mel te Tmax jox na fi exemple am na yeneen mbër tamit mais gannaaw ñëpp xam ne fu mu toll nii. Fourière euh, mu nekk ay mbër yoo xam ne ñoom ñëpp gannaaw tamit bañ lay démissionné dafa am ay règlement yoo xam ne CNG da ko teg pour mbër bu buggee démissionné si yoon la war a jaar. Mm-hmm. donc ñoom tamit topp nañ yoon yëpp ba nar a fu toll nii nag jàpp nañ c'est confirmé ñoom dañ génne écurie bi di Grand Yoff mbooloo euh, war nañ tamit joxe ay xaalis. xaalis boo xam ne dañ ko war a tamit jox maanaam ay nampaay leen ko mën a tuddee si nii di waa écurie grand grand yoff mm-hmm. wala grand grand yoff mbooloo dégg seen commentaire yooyu boo bonjour euh, commentaire bu xawee ñëw bu baax a baax dina ma gën a arrangé pour ma gën ko ñu gën ko zoom ñu ko usin kay doon ko zoom <laughs> zoom zoom zoom commentaire bi boo ko zoomee rek après incha allah wala sax boo ko sax ñoom peut être. dañu ñu a gis bu baax a baax lii di commentaire yi. donc histoire bi noonu la demee ba fu mu toll nii sax jàpp nañu c'est confirmé saison 2022 2023. Mhm. Euh, ñoom teem ak sax ñoom ñooy mbëri si topp yëpp ku lim jum waaye en tout cas toll na lu la cinq mbër wala sax six mbër yoo xam ne ba moo tudd dañ dañ jóge si écurie boobu commentaire yaa ngi noonu mais ak commentaire ba léegi génnagul buñ gis na ñoom tamit euh, comme ni mu la ko waxee rek ñoom fu mu toll nii am na ñoo xam ne war nañ joxe kii di Pape Lo mm-hmm. fu moom war na génne xaalis bu bëree bëri parce que war na toll war na génne xaalis bu tolloog deux cent cinquante mille francs yoo xam ne war na ko jox écrit boobu di waa Grand Yoff mm-hmm. yeneen mbëri lu si mel ni Tmax wala wala yeneen mbëri ñoom tamit war nañ joxe lu tolloog cinquante mille francs war nañ ko jox ñoom tamit nampaay si écrit boobule mm-hmm. mu nekk écrit boo xam ne peut-être fans yi bëgguñu woon ñu jóge fa parce que boo tuddee T-Max xam ne. mbër kaamin la mhm. am na ginnaaw lool lool lool. Fourrière boo ko moom tamit. Mhm. xam ne mbër kaamin la am na ginnaaw lool lool lool. tey ñu ni ñoom tamit dañuy génn foofu jàpp nañ ñu bëri jàpp na nag Pablo moo tax ñu génn <laughs> mais je se pas en tout cas xaw ma xaw ma ndax Pablo la xaw ma ndax du Pablo waaye en tout daal euh, mën nañ jàpp ne peut-être ay clan ñoo am maanaam si si boobu ñu bëri doo leen jàpp tamit jàpp nañ ni moo am si si biir est-ce que nekkul tamit ñoom dañu gisatul seen bopp foofu moo tax ñoom tamit ñu bëgg a génn parce que mbir boo demee ba gisatul fa sa bopp c'est mieux que nga génn mhm. dem xooli fi nga xamante ne ni foofu ngay gisee sa bopp mais mën na bañ a nekk question de clan mën na bañ a nekk question de mbër mi moo tax ma génn mën na bañ a nekk kii moo tax ma génn mais xëy na ñoom dañu dem ba gisatuñu seen bopp ci fi ñu nekk mhm. loolu moo tax ñu bëgg a génn xooli fi nga xamante ne nii bu ñu fa demee dinañ fa gis seen bopp. Mhm. waaw mu doon loo xam ne lu am solo gis ngeen noo faa moo ngi naan resté à Grand Yoff te un futur champion courage mbër comme ni koy waxoon sànq champion mhm. la mhm. Pape Birane Diop moom tey gis nañ ko kii fula kii fula la def de. ne fula la fula la am donc mooy noonu kii di Dame Thiam moom tamit su ma doon yow damay toog Grand Yoff gis nga mu ne ça veut dire mu mel ñoom ñëpp lañ bëgg maanaam mbëri resté parce que ñoom tamit bëgguñ maanaam tey ji créer écurie mhm. ba mu toll yéen ba mu toll fenn fii ba Sénégal yëpp commencé di leen xam te boo tuddee écurie euh, lii di Grand Yoff tudd kii di Zarko mhm. parce que boo nee Grand Yoff tudd Zarko boo nee Zarko tudd Grand Yoff mhm. am combat bu mag boo xam ne moo tudd am na ko mu doon combat boo xam ne ba moo tur waa Grand Yoff yëpp ñoom xalil ñoom dañ ko préparé bu baax a baax parce mm. nekkul euh, combat bu yomb parce que Ada Fass ko tuddee xam ne fu mu toll nii moo téye réew mi moom dafa bokk si doomu réew mi moom tamit mu doon loo xam ne lu am solo la gis Ada Fass ñoom tamit ñoo ngi koy xaar combat boobu nee naa la Sénégal mm-hmm. la boo xam ne euh, waxuma la sax euh, kii di Ada mais Zarko dafa confirmé parce que Zarko nekkoon si làmb am si lu baree bare bare mu dem extérieur daal di ñëwaat tey mu daal di delluwaat na la ci di toll rek kii di Ada Fass bu ñu paree si làmb gis nga euh, ñoo si wasaare bu